kilifa gi muy sëñ Mouhamadul Mansour yàlla xam na ne ba fii ñuy waxee yéen jataay bii mi ngi koy superviser te loolu boo demee ci xurtu bi Seydina Mouhamad moo ko wax ci xadis nee na bu leen teg seen néew yi gàcce ñu ne yont bi nu ñuy tegee suñuy néew gàcce mu ne nit bu génnee àdduna njabootam bu ñu nekkee am lu ñuy def ci kaw suuf da koy superviser moo ña mu nekkal bu dee lu baax la mu bëgg ca bu dee safaan la mu mer ca moo tax Seydina Muhammad wax ni xayaati xayrun lakum waaye wa mamaati xayrun lakum ñu ne ko yont bi sa dund jaaxaluñu waaye sa dee moo ñu jaaxal mu ne guddi àjjuma guddi altine gu jot moom Seydina Muhammad lu xeetam wi def ci bàkkaar dañ ko koy indil mu vérifier lu ci baax mu ni yàlla di mataleel lu ci baaxul mu ni yàlla di jéggal leen loolu nag moo indi jataay bi ñuy fàttaliku kilifa gu tedd googu di sëñ nga xam ni ba àdduna tukki daan na wax ne boo faree lettre ñu bind ci alxaaju bu laaj ko ko moom alxaaju Cheikh Omar Fouti moo ko moom boo faree lettre ñuy bind ci alxalifa nee na bu laajte ko ko moom sëñ Babacar Seck moom boo gisee lettre ñu bind ci borom daara ji ku ko forte maandu doo ko yóbbul kenn ku dul sëñ Mansour loolu nag doona la bis dafay <coughs> liir ci benn téré ñew ñi señ babakar dama waro señ babakar ne lolu war mu ne ko dama xamul nak naka la nitu yalla di amé yenn martaba yi mu ne ko xana ci jawahirul khamsa nga ko gis dom mu ne ko waaw mu ne ko martaba bob ba ko rombeeg léegi doom na ñaar fukki at na ci daara ji mom señ masso am nit ku ñew di luxus xalé taw di bi aal bi tàngee baaraam loon def ni xaalis bi wad mu len li bañ ñukoy jangal ay xalé lañ amna na gu ñew bis mu woko ko ni ko diw yow ya say say amna sey bo xane bu yag ba legi ñu ngi taxaw pour nakala sey bi sottee bi laa la gis nga na ndaw si lànkal buñ ci bëggee dugal bu ci dugg mu ne ko si mu ne ko ngi taxaw ci wetu place sangam ak diw nga di wax ndaw si mu ne ko yeesal ma daayira mutahabbina bu lu na bu fekk nañ ko ñom re bëgg ko jox àdd yi xeeb ko wara jox ni ci di xolante ak diko konté ki naan nañ ko yok ak ki na bi mu tijjee mu ni leen waaye yéen addee ju ngeen ma war a jox rek di werante ndax da ngeen war a yokk wala da ngeen ko war a yokk gars yi ti mu ni bu ma mën woon ni ci biir di xam li ngeen di waxtaanee jarul ngeen may toog te loola ndono la sëriñ Babacar Si radiyallaahu taala anhu ku dégg ay mayam léegi xam ne mën naa jur ku ne sëriñ Babacar nee na Firawna li muy bon bon bon bu ma ne woon yàlla tin ma ci mu yóbbu ko àjjana nee na luy ñuul ci wee mosuma ko fàttaliku fu ma moyee yàlla man sëñ Babacar nee na ca alas bi rabbikum xaaloo balee ca la négocier pour alaaji maa nekk papa mu ne yàlla nitu yàlla bële de bu ma sañoon bu ñu demee ci àllaaxira moo muy jur ne fi mu toog ci Tiwaawan fel way dox ca pont Ndar buru tànk ba dukk dukk ji mi ngi koy solal fi mu toog moom sëñ Babacar ñu ne ko dañoo gis ne yow doo jox sa taalibe yi turu yàlla mu ne fexe ba doon turu yàlla ci say taalibe moo ëpp doole den jox yàlla moo tax maam su koy dañ ne xut bu zamaan boo xamee turam am ci li nga bëgg moo gën a gaaw nga jaar ko ci turu yàlla nit ku nekk ñaari tur la am tur wi ñu la tuddee fii ci kaw suuf ak sa tur bi ci kaw asamaan bu ko nitu yàlla xamee dina xam kañ ngay judd kañ ngay dee ñaata fan ngay am ak loolu sa dexaaj maa ngi loolu da koo teel a defal njabootam maam Ahmed si nga daan romb benn jigéen romb na ko di waaxu mu ne ko yow looy yàkkamti xamuloo yow di nga am jëkkër di nga am ñaari doom kenn ki góor lay doon kenn ki jigéen nga xam ni kashfu ba dafa bari woon ba bu mu saana génn ci jàkk sëñ ba say xaaj Maalik génn doo xamee kan moo ci Imaam Ahmed si ak kan moo ci Seydi Xaaj Maalik sëñ nag radiyallaahu taala anhu mës a weranteeg Maam Ahmed si ci ci mel noonu ba sëñ Babacar yaram wi tàng mu ne Maam Ahmed si boo ma ko waxatee dog ci tariixa bi sëñ ñëw ni ko maam ama sini sëñ Hadj Malick dégg li Babacar wax may wax ak moom sëñ Babacar ni sëñ Hadj Malick ni ko ah maa ko jur waaye bu ma ko waxoon ma yeesal mu ñëw ni ko waaye yeesal ma ak sa bopp bu nga xam ne ñoom seen i may mënuñoo jur kulul seen doom laa xarwa an yarsala walidu bi walidin waaye sëñ Mouhamed Mansour nag dafa am beneen beneen particularité bu ko ci yàlla defal wax naa ni Souleymanu Amrin boko ko déggee musawiyin bi najdatin xalilu yi diin li Muhammad dafa incarné lolo ci baatin ak ci zahir ba fu mu toog dafay fee bis gars yi dem nañ VDN booba jamono Sénégal mi ngi am délestage courant yi di coupé ñu egg ci deux voies ñu dugg ta lampe yi takul mu ne ana Omar Diop mu ne ko maa ngi mu ne ko wol ma kilifa Senelec mu woo ko mu ne ko yow dag may fondo nee woon la nak ma contrôler keur guma jëm bu coupé nda tak légui légui mba ma fay la yow ci walu bop <laughs> sëñ baba ka dañuy dañuy sëñ Cheikh dafa ni adna min hajat fi saxaarin li subhi fi saxaarin manam ni baba ka di faja ajo? ni mu jégué fajar ak suba loolu itam toppatoo woon na ci sëñ toppandoo woon na ci sëñ Babacar ba aajo sëñ Mansour ci sa am na ci yoo xam ne daawul sax euh, weer bi mu nekkee armée ibbi fa daara di fa jàngale di fa gàmmu maanaam li ñu li mu doon def Tiwaawan da koo def armée ba foofu mu gi militaire yi di tardé bu ñu leen wooyee pour manœuvre ndekete yooyu ña nga jëkk sëñ Mansour di jàng ay nuunu yaak ay xilaas saab chef bi nag bis mer ni day tëj vingt Mansour 24 heures dana ko tëj kaso buur wal ba xam moom doomu xalifa bi la 15 jours la ko la ni la koy tëj bi ñu yónnee Mansour lettre mu ne Fida rus naa di téléphoné seigne Babacar de cotis tiis loxom jang ñaan lamay ñaan dañ ca tek 5 minutes cheikh ba ñu affecté ko ci sas ne ko yow France yónnee na note léegi bis naka tey amatoo fi droit man say bagage sax Dakar lay fek yow da ngay dugg ci auto bi and ak auto bi dañ la yebal say bagage fek la fa nga nek ñu andilo té lolo wiraasa la goo xam ne ñoom dañu ko doon ci mag ñi yàlla defal leen ko ti am na ci loo xam ne itam expérience la bu nit di dund ñun fekk nañ ko bis ci na këram boobu muy defar rawaan di way mu ne ma jox ma ma may rawaan te boobu maa ngi jóge ko gasoil bu ma ñibbee Louga laa dese maanaam benn dix mille francs te bu ma ko joxee rawaan wóor na ma du ma ñibbi jox ma ma may rawaan ma làmb sama poosu gauche ci la xaalis bi nekk ma bàyyi làmbaat poosu droite mun ma sa poosu càmmoñ ba ñaari bee cinq mille mi ngi jox ko. te yooyu mooy yu gën ndaw ci yow xam nit macha allah nit jaaxle bëgg am doom ñëw ci moom nee na ma juróom sëñ Babacar daf ma koo jagleel jigéen ju mënta am doom ku dof pour mu faj la yenn saa ñu takk dof indi mu ni tekki leen ko ñu ne ko sëñ bi kii day dóore mu ni tekk leen ko ñu tekk mu ne ko nanga bàyyi dóore bi ah mu ne waaw mu ko toogal kooku foofu lay jaaree wér moom. sikkar ba turu yàlla jàpp la te lii li yéemoon sëñ bu ñu la indee ci dof bi mel noonu nga defee ni sikkar la wala turu yàlla ñun an fekk naa jataay ñu indi benn nit mu ne ko yow dara jàpp la pion yi ngay naan moo la jàpp bàyyil drogue bi ngay naan jógal dem. te effectivement waa ji daan doro wu te buñ ko indee yanu gis muy daanu ñu defee ne werd la fekk du turu yàlla moom xam na ni lii dorog moo ko jàpp bis dem nañ jaar ne yaram yu tàng wallaahi keroog man la nodd loo timis ñu pare mu xaalu ni lal leen balaa balaan wasifa ñu lal mu xool ci jataay mi ni eh jugal yow xool kenn ni ko jugal ñoom ñëpp bu mel xoolee kenn du ci taalibu ci Ahmed Tidiane gaa yi ñoo génn si ni waa saa lan moo tax paa yëkkatuñu ma ne ko ñun xamuñu dara di waa ji ne man de neexu ba neexu waaye nag du taal bi a ànd ci groupe bi rek koy topp boobu léegi mënu ma koo gis ma ne bu ma profité ci mbooloo naa ko gisaale am bis voyage am boobu ngeen dégg mu dem jaar ne jóge fa dem waalo jóge fa dem Maroc jóge fa dem Casamance soog a dem Màkk mu ni Seydi Hadj Malick moo ko feeñu keroog wallahi ci yetu oto bi laa taxaw mu ne ma sëriñ Hadj Malick moo ma feeñu ni ma naa dem jàdd jubal fa dem waalo bu ma fa jógee dem Maroc jubal Casamance soog a nga xam ni eh, nekkoon na ko xam ni maanaam eh, feeñ na ba pare na bëtu boole te néew na nga daan ñëw wax ko aajoti faju ko ci saasi xamoon macha allah nu ñu. bis am naa sama benn mbokk ndeysaan bëgg am liggéey mu woolu bi ki koy bindal ni ko bindal ma meeru Louga bi ni ko kii sama jarbaat la bu ko neexee na ko jël bu ko neexul na ko jël bu ko jëlul dinaa woo président dana ko jël ni ko nag maa ngi koy gërëm ca biir màkk yam ma jëndaloon wasalaam yónnee ko ne ko sëñ Mouhamadou Mansour am na bis ñu nangu suukar suñ ko doon andil waaj ne ko sëñ bi de suukar sa la njàpp mu téléphoné ana cheikh douane bi waaj ne ko maa ngi ne ko fekk ma teewoon dama laa soxal waa ñëw mu ñëw ni kii nag mooy kilifa ak duwaan sama xarit la sama taalibe la sa gars yi nag sama suukar sa la ñor mu ne ko sëñ bi suukar saa ngi ñëw léegi te bu ko woon ca dakaar ne ko suukar si de waaye fokk mu indi la ba ci kër gi présente la gars yi ba pare nag nga soo ko def mission bi mu la sant loolu nag mooy am Amrin yàlla daf koo mayoon eh, mu doon loolu ci Cheikh Seye xam am bayra sëñ Abdou nee na bayra bi ci sëñ Mansour dina néewati nga gis nit ku yàlla defal noonu itam la bëggee woon def lu baax boo ñëwee toog li nga li mu njëkk xool ndax li nga sol lu baax la wala du lu baaxul am na kilifa diina gu maggum seet ni ko yow waroo dëkk ci néeg bu mel nii waroo sol yére yu mel nii si mu yëreem soloon jox ko tabaxal ko fa mu dëkk su ko defee nag ñoom di fàttaliku seen jaar jaar waaye la gën a neex nag ci la ci jàng mooy sëñ Mansour jikkoom ak jëfam dafa moso dafa àndoon xam-xam nag mu incarné na ci woon loo xam ni ku ko bëgg a mësaan ndax rek ci xam-xam koy ndax maîtriser fànn yi nag ci manière bu jaaxal ku ne maanaam lépp looy wax ak moom da koy tari ti am na xeetu fànn yoo xam ni boo gisee kër Seydi Hadj Malick seen xam-xam yéeme maa ngi koy wax am na funun yoo xam ne Seydi maa Malick bis nee na li ko metti mooy li yàlla ballal ci dënnam trois cent soixante xeeti xam-xam ti xamul naka la koy kan la koy mën a waxal ak kan la kan la ko mën a génnee waxtaan ceeg moom. mu ni dara gënu koo metti maanaam yàlla bal la nàccal ci dëndam 360 balwaayu xam-xam te xamul nan la def ba génne balwaayu xam-xam yooyu ak kan la koy waxanteel jàng almul ixtilaaj almul zardaq almul baytara xeeti xam-xam yëpp yëpp Seex Seydi Hajji ko daan jàngale su ko defee nag ñun ñaar ñëpp nag man ak jabel sunu sëriñ ñëw na nag bàyyi bu saaxo dafay gàmm ba mu yàgg mu gis nit ñeeg rëg-rëg ji ndekete booba alaaj ab doo ñëw ah su ko defee ñu dalal kilifa gi ba noppi ba nuyu su ko defee liñ doon wax léegi maa ngi nett ni bàyyi Ibou Sakho day waxtaan ba mu yàgg baas bi riir mu ni teg am wa jo xamni xamna fi baye bu saaxa tolloon dafa neex muniko ne eggalel way baye bu sax niko ya dof wax ko ñet yon niko bu yiss bam ya niko boy ko fleur bam ya commencé taw <laughs> lo def lu sa kay rek amu xel lol nak ma nak jabel ma sha allah rabbi moñu dal señ Habib ñu ko don néegandiku ba ba léegi eh, lañu don wax léegi rek ci gor gi nga xamni dafa jafe woon koo xam ndax moo waxal boppam ne ñaar rek a ma xam kenn ki day génn àdduna kenn ki du génn du génn du faatu ki ma xam te faatu mooy sëñ Babacar Si ki ma xam te du faatu mooy yàlla kenn tane wala sëñ Mansour mu jóg rek nga xam fan la jëm mënoo ko am moom kay gaa yi ngay koj ci téléphone rek bu départ daal départ na léegi nag arrivé bi moom. ka ànd ak moom na ngay laaj fan la nekk su génnee ñu ne ma nga VDN fekk na moom ma nga jëm pire nga topp ko piir fekk bu bu eggee teg bagage ko waat loolu lu ko yàlla defaloon la du jóg mukk nga xam destination direct bu jógee nga ne ma nga tëngee fekk na ma nga continuer Dakar yàlla defal ko itam ci fajo aajo nag li ñu doon wax léegi nii yàlla ijaaba ci wàllu ñaan la ko ci yàlla defal benn la sànq maa ngi nettali sëñ Habib. benn oto bu ma doon jaay mu taw a jar BM 318 essence ku ko waxaale rek bàyyi ma ñëw fekk kër Alaaji Mor Mbay ma ne ko waa góor gi sama oto bi daa taw jar mu ne bu jaree ñaata loo jox ma ne ko léegi kay ñaaral ba pare ne ma aal ma ndox ma jox ko mu jàng ci la muy jàng ni ma wis ko ci waaye bu mu laal sa yére ndax bu ko laalee di jaayal yére bi billaahi wal kitaabi oto bi keroog jour boobu la jar koy jaay nee na dalaa wax moom lu mu la jox pour ko koy jaay bu laalee sa yaram sax nga jar nee na bu laalee sa yaram sax nga jar faf yow yow mi jaay sa <laughs> mayem la woon ca la banque woon baaraam bi man ndaw lu ma bëgg mu am mu mu mu tàkk jigéen ju ma bëgg mu am doom ku tële faj ku dof yii moom yàlla da ko mu ni Babacar toog na mu ni eh, eh, riyaada li ko ci sëñ Babacar def fu mu mën a ne ci àdduna ak lu njabootam nekkee bu ko bëggee xam fa toog lay toog di jàkkaarloo ak yow te itam nag fii ñuy waxee yéen ba léegi nag wax naa leen mi ngi superviser jataay bi nit boo waxee dara danga koy layal la nga koy layalee mooy li Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax ne woon tubaanu amaluna sunu jëf yëpp dañ koy gaaral Seydina Muhammad ak guddi alxames ak guddi altine noonu la yant bi teegoo woon ni gaañ yi fay leen jaafar mi ngi nii ànd ak malaaka yi leen nuyu te ña ngi ko reyoon ca muuta loola la mu jàngale mooy nii am na te nit ñoo xam ne ba léegi bu seen dundut moom mooy seen ginnaawam mook seen kanam ay yem sëriñ xaaj maa ngi wax na ci kifaayatu raaxibiin nee na am na nitu yàlla yoo xam ne bala ñu lay mën a tarbiyee génn àdduna ba nekk ba ba pare soog a mën a def ceew tarbiya yenn saa ñu dellu si seen njaboot itam yàlla da leen koy may keroog waa Badar ay yéefar lañ bi ñu leen rey ba dugg leen ci kàmb gi Seydina Muhammad dafa ni leen liñ lay li leen yàlla digoon de gis ngeen ko man it lim ma digoon gis naa ko Omar ne ko yonte bi ndax da ngay wax ak ñu dee ba pare mu ne ko ni ngeen may dégg ñoom it lañ may dégg mais dañoo mënta tontu kon yooyu ay may la yoo xam ne yàlla daf ko defaloon waaye itam li li ñu mën a li ñuy tëjee te nit ku nekk war koo jël ko bind mooy dignité ak ngor li ci sëñ Mansour daan incarné nga xam ne mosul bëgg lenn kenn yëfi boppam rek bi gouvernement bi wàccee te ñuy seet ñu joxoon ay oto ki kër ñu koy nangu mu ne bi ñu yónnee ci moom daf ne la ah, yàlla def na nag limousine bii moom ci sama alal la jar bële ci samay tool la jar bële nangam reen leen na xaw ma ku kuñ mayoon oto gu koy làq ak ci garage waaye man moom samay oto ñeme naa koo fësal moom nga xam ne teel naa am lu ñuy di wax autonomie ci boppam teel a mën boppam teel a mën a defal boppam su ko defee nag euh, guddi yi ñu jëm nag di fàttaliku seeni mbir ak yokkute la ci ñun euh, ñaan yàlla yàlla na yàlla yokk leeram euh, lii ko yàlla defal ba àdduna bi yëpp foo tuddee turam ku ne sa xol yëg nga xam ni moom muy tijaan muy murit muy ku mën a doon ñëpp amoon cofeel Sëñ Mansour ñaan it ku ne gëm nga ni boo amee soxla bu tàggee bu jàkkaarloo bu ko ñaanal yàlla teggali loolu nag sant yàlla la léegi rek laa koy nettali ci ngoon sëñ Habib kër gu mu démon di tijji yi buntu ba foofu ñu kànnaare ko ñuy xaar borom kanar mu yeex mu jub buntu bi indi baram bu daw ni ko tijjil man la mën soorul kanar bu tijjil bro ñu fokk nga wut ab ab mënu jëm métallique mu dajj la té yoy yu bëree bëri da ko daan def daawul nekk dara ci mom di salatul fatiha señ hayyub nee salatul salaatul fatiha da koy def kon nak jeex na alfatih li ma uxliq <laughs> kooku nag xam naa sëñ bi foog mu jox ñu bon bi loolu nag ah, moom la wane bu ñu ñëwee rek ñu bëggale leen ko ñaan yàlla yàlla bu ñu réccu nag lu ñu fi doon daje ndax kilifa am ko te xamoo ko a ah, ñàkk ko sax te xam ko moo ko gën am ko xamoo ko ñàkk ko te xam ko sax moo ko gën te nit it booy topp war ngaa xam ki ngay topp booy demee war ngaa xam fi nga jëm dafa am waaju doon tukki kaar bu mu arrêté rek nga ne ko nomb manam kaar bu taala loxo nga ne ko nomb mujj mu ne ndomb de bo demé deje fa xew auto bo wax rek mu la nomb hmm? ma waji day tukki te déggul tuwa auto hmm. bu mu arrêté rek nga ne ko nombre mom mu def ni nombre la mu ne nombre de ñakul fa xew auto bo wax rek mu la nombre muy ni may def la mo dugg ci auto nombre yi bu ma ba nombre ma wacc li ci dess ma dox ko ndax xam wa ne sori fa ma jam dugg ci benn auto feesul mu dugg rek tok ne ko nombre waji def ni daf ko ne fayal nombre de place jox ko ñaari junni rek waji delo ko 700 ci ñaari junni bu xoolee wecc rek ah passe nombre ke da cher way <laughs> say mu ne mu dendal so do passe nombre ñaata la mu ne ko xawma ko ne motax tax naan baxu baaxu nit loo xamul rek da koy laaj bi gaay di commander ci benn restaurant ñi naan shawarma ñi naan hamburger ben way di hamburger mom foog nga wut torchon sinon day tax mu ne man jox ma torsion mom neena torsion lay lay lay commander waaw way waaj dal bi ne ba waj ñu wàcce ko mu ni sama dom fi moy nombre mu ne ko dedet mu ne ko nombre moy la mu ne ko moy nombre place yëpp mu commencé kar ndaga njaay nak kum nek mu la yaa fi jaam sax ñum nombre nga ko dedet du man ma rek ko mu do ko gawa a kon señ bi sang njaboota eh, dañu ñewon doon wetali tabarakallahu ma jabel bi ñëwee te macha allah def na fi waxtaan wu euh, macha allah ji waxtaan wu tegu ci Seydi Hadj Malick ci borom daar ci xam-xamu Maodo ci ba ci karaama ni ko Seydi Hadj Malick tatlab kullu yawmin al karaama alam tara min qabli istiqaama euh, macha allah xol yëpp tooy. Euh, sànq la maam Omar ni ma nag bu fekkee pare nga ngoon gi boo mënee demaale université aussi gaañaa ko ñëpp suñu Abdul Aziz tabarakallahu ndax euh, sëñ bi sax euh, jombul mu agsi fa incha allah si ku defee defee kàddu yi rek moo ne woon ne nañu woon nañ ko yëg moo ne woon ne nañu woon nañ ko yëg moo ne woon ne nañu woon nañ